nga kura yow mhm. xam nga kër boo yenn gunge leen police ñun waaw metti gaa bu ñu gunge police waaw parce que nga si Assane Diouf ak mhm. Tunkara yéen boo ko nekk seen étage yi ngeen seen biir ak ki nga wax léegi xale bu def rasta te nekk Moussa Camara voilà mhm. léegi nag nga teere si ndeyu bu ngay dani nga allah gis nañ ko gi muy def ñi xam nga di wax bugaan ndaxte lan dafa sa président tax waaw ba di wax ndey gis nga bax ci biti te baxo ci sa bir keur megul ben sens bugaan gay dani man mani ñetti jabar ndegam atanoko mono atan sunu rew mi bugaan te nga yem ci sa télé bi benn bugan amo écran plat doomu benn baas bee abal bugan fayo say cameraman ñoom ñep dem nan ñi ngay torox di jooy bugan waaye yow mbugaan nee naa la nga dindi sa photo yi nga taf ci dëkk bi xam nga lu ma ciy tuur euh, gordoron. ah mais attends ah kay ah, gisee télé bi macha allah def immeuble bu baax. mais yooyu yooyu yëpp ngistal la li ñuy def ci biir nee naa la Bougane du fay cam ñiy def caméra ñi ñi ñi filmer nii du leen fay caméraman yi. daa émission ngi dem de. émission baa ngay dem boo amul la la la gënal da jàpp ca la fa sës bugaan seetlu li ma lay wax bugaan dàq na paaye fa ne woon saaga leen bugaan saaga na euh, euh, euh, Keledoor rakk ja génne ko fa bugaan ne naa la ñetti jabar yi bugaan takk moo ko dofloo xamul fu mu koy xiir mu xiir ko ci réew mi. bugan Bougane man ci sa télé bi mon ci télé mbi la ko nawé won no yow da nga bëgg a wax actuellement ni limu nek limu am ñetti soxna waru mëna nek nekk rew réew. mu ñu leen réglé. mëna nga am 3 dames. moko ko mo moo ak momi ni gis nga dafa melo am am am bobu ngeen doon yónnee nu mu ci bi ngeen di yonne joni joni am benen ba am na beneen bu mu amaton yoy yëpp of lu ko def non naw ñetti jabar ya ñettel ba toroxal Bougane ci rew mi mu def ay wa kërëm nan ko japp yow yow kura li ngay wax dafa doy waar parce que ñettel bi suma ma moy ki doon liggéey ak mom té mu ngénte won ko ngénte lu rëy do ko ko na ko ko nak mo yóbbu nak furu fara bu Bougane réer xolal léppam di def ni xolal xam nga ni gan bu démé ba président république lu mu wara a def. gan gëlem gëlem lu tax ñu woko waaw mais parce que moom dafay ñaax xale ñu dem bindu ji donc loolu. moom du cëram moom loolu mu def mën na ko def. Ah. ñëpp a ngi wax xale yi dem leen ngeen bindu dem leen ngeen defari seen carte mais lu tax Bougane kan la ci réew mi ba war a jël posteram bu mag boobu mbete mbete président république doonagoo ko yow mënoo gérer lu lu talam bi tudd. TV Sen ko gérer. ña ngay jooy nit ngay jooy ñoom ko wax ñu fay liggéey mais kura xam nga sen tv moom wax deug yalla boo gisee ña fa ma sha allah doxul nga fa di liggéey sen liggéey bu am solo yow xam sen tv bam lay wax ne sen tv doxul ñi ma xam sen tv dafa bari lepp lu ñu fa wurut xam nga tey sen tv ku fa ku fa ku fa tedd amadou ndion wa alias ahmad aydara domi dangin mo fa mo fa am mo fa am place mansour diop netatu raw ñooñu mais say xarit lañ waaye ñu ngi tukkalaa dina ñooñu ñoo fa ñooñu daal ñoo fa am salaire ci des ñëpp France sama xaritu benn bakkan Bougane yoral na ko xaalis ci télé boobu la doon liggéey Bougane ameel na sama xarit xaalis foofu la doon liggéey ñëpp xam nañ sama xarit ameel na ko ci benn publicité bu ñu defoon ci diggante bi kooku bàyyi topp na ko ba sonn nee na ma bàyyi naa kook ak yàlla buggaan ah, ak ak ka ko feesaloon télé ba euh, kii ba stade euh, Géejawaay ba yow buggaan def rentrée xale bu jigéen ba ko feesalal kaaram yooyu xale bu jigéen boobu ba tey ji mi ngi jooy mun mënut a gis buggaan ak bët xamul fu buggaan ne ma ngay jey mom dal bugan dal la ngi rew mi di defi ngistal police buñu ñu rajee buggaan jël naa ko en charge mais ñi koy caméra du len fay mais yow euh, sen TV mi ngi tok la moy tok sen TV ku rajee. xana ñaka fayé ko <laughs> mo na day top day tan ko manki sal yow xana xamoo ne président boo ci ginnaawam ci tankam nan dang koy tibb mm. mais yow dangay delu ginaaw président da koy jiitu ci kanamam mais doo ñëw ci ginnaawam di tibb tànkam bugaan fayal sa caméraman yi bugaan delloo sa écran plat yi nga abbu doomu benn baas ba ñuy jooy te noppeegunu demal nga delloo yooyu ñun xam na lépp mais da ko ko abbu mais doomu benn baas bi moo ko ko abal <laughs> li may wax ni que dama ko xam. kuréel yi amul écran plat dañ ko ko abal. yang ñetti jabar day nono <laughs> yow mënoo gérer sa ñetti jabar yi nga ne dangay gérer suñu réew mi Sénégal yëpp ni ma neel bugaan ñoo bañ yii muy def ci xuutar xuutar yëpp jaru ko dañu bañ waaw koy intéressé wu ma ba mu yoree telem bi moom rek di ma jàpp ko comme citoyen bu ubbi yëfam apprécié ko mais bam bugaan duggee ci yi mais ñetti jabar baaxul def leen jabar day <laughs> ma ne nga toppatoo sa télé bi Bougane Gueye Dany yii ngay def sénégalais dara ñoru ci xam nañ ni yow Bougane furaas of joni joni of Bougane sa ndigg ni karaj waaw kay waxal sénégalais nee leen sama ndigg moo ni karaj mooy ñetti jabar la yor Bougane dafa mën a dem fenn Bougane toog bu yàgg sax mënu ko <laughs> wax yàgg sax manu ko fu oto dawee ñaari minute buggaan ni may leen ma ma tàllal sama ndigg ma ne ko ndigg ma ne ka rek ndax ñetti jabar yi nga bëgg a yor suñu réew xanaa yow kon dañ ñu bëgg a rey yow bëgg a musul am ci àddina musul fii am Sénégal Sénégal benn rek moo fi ne benn première dame rek mu mel ni suñu ajaa bi mère de nation Marème Faye ma ne ko ma ne ko yow ak Cheikh Tidiane Ba man duma waxantu man dama. man dama suur. léegi yow comme loolu yëpp yow yaa ko bëggaan. waaw yéen xamante ngeen. wax kay wax kay seen problème yooyu. yaa mhm. Mhm. mais yow bëggaan nekk ci dëkk bi ubbi seen TV ubbi d'accord am macha allah di dimbali ñu gis émission bu rëy ba muy def muy grand cœur di dimbali ñu aussi nga toog fii yëpp wax ko li nga koy wax ñoom am nañ seen télé boobu dañ la wax. waaw kay nañ ma tontu ndax gis nga seen télé ah, am parparloo bu fa ne. bu ñaaw sax. ki di Ahmed Aydara ñukoy wowe taxana xamone Ahmed Aydara turum deug deug Amadou Ndione la mos nga xam lolu yow. Amadou Ndione mooy. mais loolu la tudd Amadou Ndione. Ah, bàyyi len sama chamagne bi dafa ñew turu turu meja, mu def Ahmed sant Aydara amul mami waliyu mamam du rasulillah Ndione la sant. mbokk Antoine Diome bi la du non la tudde ah, ministre <laughs> du la tudde mbokk koku la. mu ruube réew mi Ahmed toujours dafay wax loo xam ni dafay naqari sénégalais gis nga bu fekkee ni danga nekk di def ay animé yii bul indi luy naqari société bi moom defe naa Ahmed Aidara journaliste la loolu la jàng ma ne ko doo journaliste journaliste Babacar Diagne la ak ñoom euh, soxna euh, euh, Modou Kara mu tuddati soxna Dieng man ñooñu laa xam ci journaliste ak ñeneen ak ñeneen mais lii xew léegi nii man bëgguma ko ci sama réew bi bëgguma ko. mais xam nga yow da nekk États-Unis mm-hmm. bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg accaparer bëgg bëgg la neex nga ko samay càmmañ man Ahmed sama sama mag la. ak ak mm-hmm. Mamadou Mansour ñoom bàyyi bàyyi ñooñu samay càmmañ lañu. mais xam nga Ahmed day politique est-ce que yow politique buy politique te yow comme yow yaay Koura Macky. Mm-hmm. da ngay nekkaale Koura Alioune Sall te moom dafa bëgg a jël mairie Guédiawaye est-ce que yow loolu moo. mais Ahmed mu Macky la Ahmed mu mag yi. yow xanaa déggoo Ahmed jëw bu rëy bi mu jëw Marème Faye Sall ak Macky sàll ak Youssou Ndour parce que Macky sàll daf ko invité ca palais ba. loolu kañ la. la un an. ma ma ma ma ko ko pour sénégalais yi déggu leen dégg danaa la ko yónnee. mu dem toog ca mbër ya lu nekk mu yekk ko président Macky sàll ak Marème Faye ak Youssou Ndour. mbër ya ndeke ñu ngi enregistré yow ay Aydara Ahmed ay fa la Marème Faye jógee ak Macky Sall téye seen bopp mu faas leen tourne over against leen mu am ci àddina Macky Sall ku ko gënal yow kon mosoo gën seeti président ah yow tam dama seeti président Macky Sall tam yu tamit ndey pétaaw ak li nga def ci réew mi ah? yow nit ñi xam lu day ni président Macky Sall nekk ci réew mi ndey ndey yow ñaanoo audience dem man maa la koy wutal man mii maa la koy wutal moo tax nag mu dof Macky ne ko yow man pare naa ci yow rek Ahmed Aïdara rek Ahmed Aïdara këppoo këppoo doomi taal ni ko tey laa lay wax lu rëy kii mu ngi gital naa sal nii rek Macky sàll ji teral na ko ba tàyyi am na benn photo bu ñu génnee ma nga ànd ak moom ndeysaan Ahmed a feebar nekk hôpital Aline ñëw ba ñu ànd photo ani photo ba dana la ko yónnee it. dana la ko yónnee xam nga man lan la bañ. man su fekke tay neena Sonko du sama leader. duma ma ba demat wëlbatiku. àddina di ma jàpp ba may di di delu ci Sonko di photo wok mom ak di rew mi man limay may kaas toujours mooy ñu bayyi rew mi ñi jaxase Ahmed aybara bu guddee mu seeti wa APR. Benno Bokk Yaakaar ñu teral ko su bëccëgee mu génn xas leen yow revue de presse ndax dinañ ci fay nit. amee ah, journaliste mais dañ koy fay pour mu wax sama sama sama yëf. si biir revue koy fay vingt cinq mille. <laughs> Ah, mais vingt cinq mille mais man Amérique leen ma ko waxee ni ma boo yónnee ak nga benn cent dollars. Ah. wala deux cent dollars loo bëgg mu mu la ko ma ni leen ca Sénégal. te du doon deug mu ne ma yow ya, katchar rek woko mais attends nga essayé da ko essayer lool. aw ma moom affaire. d'accord mais xam nga Ahmed bo gisee revue de presse li yakana ni journaux yi wax. nañ ko fay loolu lay relaté di wax ni nangam ak nangam. yamu cey yok wa ñam ñamal. nee la amna yo xamni day nekk ci journal yi Ahmed di wax. Hmm. motax gis nga bo dégloo TFM. Hmm. nga déglu Ahmed. Hmm. dafa am yu wuté man daf ma jaxal ki day liir solo ki ki du liir solo ki xam nga ah ñu ngi liirante ah, ah mu dellu ci moo gën ah, makki demoo fi ne te Ahmed nee naa la moom ma jiitu ci Macky Ahmed ba mu dugg pale dugg ma fi di Macky ceebal ko Ahmed kontaan dem toog di ko jëw ñu jox ñu tas ko ci réseaux sociaux bi moo tës boppam yow loolu yëgoo ko dafa tës boppam moom moo toog ni tey nag kay def tës mooy tës boppam daal di teg loolu mm. fii ci digg réew mii danaa la ko yónnee. dina baax dinaa la ko yónnee. léegi mm-hmm. gis ne da nekk politicien bu engagé. Mm-hmm. parce que bi nga ñëwee tamit Medina euh, yaakaar naa yéen ngi waaj élection yi. waaw waaw Medina kan nga gis mu toog. Cheikh Ba. mais Bamba Fall mu def Medina yëpp nag Coura. man nee naa la dama sëy 88. Euh, ah. laa ñëw Medina. Mm-hmm. jóge fa 95. kon xanaa xam naa Medina. te. commencé naa ñëw Médina depuis ay quatre vingt trois quatre vingt quatre ndax ñooñu dañoo nekkoon bala def noir waa Kër Seng Seng ba léegi Médina changé wul Médina bokk na ci dëkk yi ma gën a bëgg ba léegi changé